Alioune Ndoye naruta nooy la ci OFNAC bi leen observateur moom maire bu Dakar Plateau keroog talaata la benn waaye bu ñu naan Mouhamadou Mokhtar Diop bindab leetar yóbbul waa OFNAC di ca jéebaane yorin wu bon wu mu ne moom la Alioune Ndoye yore maire bu Dakar Plateau du dara lu jaw bàyyil Ndoye nee na Alioune Ndoye carburant ba ñu ko jox ca maire bu Dakar Plateau da koy yàq di ko saax-saaxe ka caxat-caxate ku ko neex mu jox la ku ko neexul du la jox Alioune Ndoye dem na ba amel waa Lynx sécurité bor bu toll ci fukki million ak ñeent ba ci doxalin wi Mouhamadou Mokhtar Diop ne waa OFNAC mooy doxalin wu bon yoon wi Alioune Ndoye doxalee ci ndimbal li ñuy baaxee néew ju doole ji ne dafi ne ñukk néew ju doole ja nekk ca commune di Dakar Plateau dem fekk ay néew ju doole yu dëkk Pikine mu séddale leen ay mille ak te loolee dara taxul mu def ko lu dul ñooñee ay mbokki kilifa la gu mag ci réew mi Mouhamadou Mokhtar Diaw ak lettre bi mu bind waa OFNAC di ci jiibaane Alioune ak na mu yore maire bu Dakar Plateau journal bi nañu def cee boole ay numéro titulaire xaalis jéebaane na ko ca percepteur ba jéebaane nañu ko ca ak maire ba Alioune Ndoye enquête yéen kay nañu li jara jéebaane dëgg moo di la xew ca COSEC conseil sénégalais des chargeurs fu ne ci réew mi journal bi ñu ay plainte jógee na fa gàll ci seen ndodd ñi ñu sëqal liggéey bi ñëpp ay ñaxtu union des chambres de commerce journal bi nañu ba ñu ko taxawaleeg léegi dénk ko sëriñ buub sëriñ buub daa joti plainte ba tay li mu jot ci plainte du jeex du xaaj mi ngi jógee nag ci secteur objectif di fekk mbir fa mu waroon a dem defuñu ko fa dem def ko feneen ak it di jox nit lu mu yellawul enquête nañu gaañi nee nañu loolee la nekkee ci réew mi ay kuréel yu ci mel ne CNP UNACOIS ak CNES ñoo teg loxo ci COSEC lu ñu fa bëgg moo fay am lu ñu fa bëggul du fa am li amoon ca mun na wal faj rek la tribune ci la ñu xëy mu di buuxante ba fa amoon ca Sénégal ñàkk ca doom yu bare wal faj nañu juróom-benn fukki doomi Sénégal ak ñaar ñoo ca faatu ko waaye wër gi nag fii la yam nguurug Sénégal moo dogal ñu yamale ko la tribune ne ko ni ñu doxalee leerul cellule de crise bi ñu samp ci réew mi joxe turu nit ñi dee ca buuxante ba ak ku leen rey la ñu boole ceekit ba ñuy wàññi doomi Sénégal ya faatu ca mun na boole wuñu ci doomi Sénégal yi nga xam ne bitim réew la ñu dem màkk mu di les Sénégalais de l'extérieur mu di loolu waa Horizon sans frontière ñaawul nañu ko ba fa ñaawlu yem ku xëy yam ci xët mu njëkk Le Quotidien yaa ko kaso doon ko tuumal ci le taaloon kër Moustapha Cissé Lo ginnaaw bi quotidien nee nañu Serigne Assane Mbacké xët na condition yëpp du dara lum ci respecté te yoon a ngi toog di ko seetaan juge d'instruction bi waxu ci dara procureur bu njaarim waxu ci dara Serigne Assane Mbacké nekk ci réew mi nekkee fii lu ko neex te nekk ci liberté provisoire journal bi nañu altine ji ñu génn waroon naa dem ci bureau doyen des six bu njaarim waaye Serigne Assane Mbacké jaaru faak tànk seeni loxoog seeni gët lépp ci l'observateur ubbi leen ko journal bi nee nañu fan yi di ñew nar naa tàng ci bir APR ndax dafa am nit yu nekk ci wetu Macky Sall di mbubboo aw turam te ñu ci dara luddul gakkal gàkkal ab deram te ñoñi ay kilifa lañu kilifa yo xamantene ji dañuy dem ci borom daraja jey mudi lom des affaires yek homme politique yi di len tek dil ci turu Macky Sall di jël seen xaaliss ba ñu jël seen stuut observateur nañu ñoñe nak nañu wacc ne ndawi APR ñoo ngi ci seen kaw nee nañu dañu len di juggal dañu len di jébané ba ñu bàyyi jëfi yo ye ñuy def wër len ba ñu te ndaw ñu duñu ca yam fas nañu yene taxaw Macky Sall défendar ko ba kenn du yàqub deram ñeneen ñu ñu ñaawlu seenu doxalin moo di ñi nekk ci wetu Macky Sall te ngor amuñu ci dara ne lu ne Macky Sall defal na leen ko lu mu am jox leen lu mu xam wax leen lu muy dugg dugal leen ci te fu ñuy xasee président Macky Sall ñoo ciy jiitu ndawi APR yi ne loolee duñu may ci kenn mu koy def ku ko defati da nga dégg sa ngën gi nopp populaire mel na ku naan ñu yooyu leen daw bu mudi waxee ci bu nuppi nañu wax ci opposition bi ne jamono politique gi ñoo ngi seen ngir Macky Sall ku politique ñu ci ko parti démocratique démocratique Sénégal ñoo nga jëm ca procureur de la république ngir lijjanti fa ana kan mooy jiite groupe parlementaire libéral démocratique ki jiite parti démocratique Sénégal di Abdoulaye Wade mi ngi ci xët mu njëkku la Sénégal yéenekaay bi nañu ngir duufal ak nafam ngir am tuuti xaalis tax na Abdoulaye Wade bëgg ne tipp lenn ca siège su parti démocratique Sénégal jaay ko ngir man ci am xaalis Anna Sémou Faye ambassadrice libération nañu léegi tey ñu dégg ko moom Anna Sémou Faye mi jiite woon police bu Sénégal te ñu ko fa bi a def ambassadeur te loolee ministre intérieur ëllëg sécurité publique di Abdoulaye Daouda Diallo moo ci dox mi ngi ci dox di ko wax ngir ana si mu fay ba ñu ko jëlee ci ñu yóbbu li muy firndeel moo di li ñenn ñi naan Abdoulaye Daouda Diallo ak ana si mu fay neexawuñ woon du dëgg ñaar fukki weer ak juróom benn yi ñuy ànd di liggéey yëpp musuñoo am benn jafe-jafe l'observateur ne ko loolee maa la koy dëggalal ne am nay cadre ñu nekk ci police bi li ñu wax moo di ku naan ana si mu fay ak Abdoulaye Daouda xamoo li ngay wax ñoo gënoon a juboo cere comme soow musuñoo am benn jafe jafe-jafe Abdoulaye Daouda Diallo ministre intérieur ay waxam ci ANACIM mu fa yëpp moo doonoon nit la ku ñu xam nit la ku ñu naw ndax qualité am ak expérience am seenub ànd ci liggéey la tegu ci yëgoo ci nawante ak wegante ñu jël réew mi quotidien xibaar bi mu xëyee tey mu di li Abdoulaye Daouda Diallo ne woon bërki démb nguurug Sénégal dina recruter junni ak juróom-ñetti téeméeri policier yéen a kaay bi lañ loolee bu amee ASP yi di agence de proximité de l'État ñoom la ñu nar a gasum kàmb ba mu xóot ñuy xooleeg seen i gët ñu ne leen ci dabaj suul leen maanaam enterré leen vivant